asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokku taalibe yi mbokku senegal tey jii nag ñoo ngi fii ci Dakar Géejawaay arrêt du Balès kër Serigne Lamine Bara Fall ci butigu Univers Bio. di présenter rek lenn ci suñuy produit yi nga xamante ni moom la ñu defar fii ci cabinet bi wax dëgg yàlla euh, li ci jiitu rek xanaa ñu tàmbalee par. Euh, suñu produit bii di bio biodentaire biodentaire nag produit la bi nga xamante ni dafay blanchir bëñ day weexal lépp luy bëñ ci kàttanu yàlla surtout sama mbokk yi dëkk Kaolack ak ñu dëkk Fatick ak sama mbokk yi dëkk Njaareem sama mbokk tubaay yi bëri na ci ñi nga xamante ni seen bëñ yi dafa kadam dafa rouge ñenn ñi marron teg der. loolu boo ko dee seet ndox rek la ndox ndoxu Kaolack bi weex bi wala ndox mu am xorom moom moo koy faral di waral mais am nañ ci pexe bi nga xamante ni képp ki nga xamante ni sa bëñ. am na tâche bu ci nekk rek boo koy broso incha allahu rab bu ñu la joxee mode d'emploi bi muy guddi gu nekk bala ngay tëdd soo ko brosé sa ci kàttan yàlla balay produit bee jeex di ci gis tawféex ni nga ko bëggee. beneen produit bi nga xamante ni vraiment gis nañu ni askan bi soxla nañ ko trop muy produit bi nga xamante ni dafay dindi nit ki nga xamante ni dafay am mauvaise haleine. ndax ñiy toox ak ñiy jëfandikoo yu bëri dafa am ñoo xam te ni mauvaise haleine bi ñu am feebar la wala natt suñu borom la loolu am nañ ci produit bio naturel yi nga xamante ni macha allah da koy faj ci biir faj ko ci put bi faj ko ci làmmiñ bi faj ko ci estomac bi ba ci odeur yi sax a xet xetu gémmiñ muy xetu yaram lépp da koy faj macha allah am na lu ñu naan am na ci macha allah rabbi lu ñuy broso moo nekk nii ba pare nag li ci gën a neex mooy dañ leen di may ay ñaan ndax yenn saa yi affaire rab affaire ngelawu seytaane dafay dem ba feebar yu bari moo ko jur xet yooyu ngeen di sentir ñu koy wax les candidoses am ñoo xam te dañuy yeewu su génn ay doom bul yu weex yu mel ay doomi ceeb buñ ko tojee muy xeeñ yooyu yëpp buñ ko seetloo ba ci biir rek incha allah rabbi am nañ ci pexe def nañ ci tawféex bu baax ànd ak ay livraison à domicile gratuitement ak fo meuna nek ci biir Sénégal. ginnaaw traitement mauvaise haleine bi amnañu ay traitement yoo xamante ni itam dafa jëm ci bio naturel ñi xamanteni dañu am problème mu glaucome ñi am problème cataract cataracte ñi nga dañu am problème mu yu yep machallah macha allah rabbi boo dee xool ñetti produit mo koy def ben bi glaucome la. benen bi myope lay faj benen bi cataracte mais yep c'est dans le bio naturel euh, bu loolu wesso amnañu garab bi nga moom it bio naturel la bu ñu ko wax active plus active plus boo leen ko déggee bëri na ay jigéen ñi nga xamante ni dañu frigide maanaam dañu nekk ak seen i borom kër di sëy te duñ ci am plaisir loolu jeex na tàkk fii ci Géejawaay arrêt du Balès kër Serigne baara bépp jigéen bi nga xamante ni yaa ngi nekk ak sa jëkkër te doo am plaisir ci li ngay def ak moom. muy jaamu yàlla te gisoo ci sa bopp incha allahu rabbi am nañ ci tawféex kon buñ ko waxee ci jigéen na ngeen jàpp ni góor ñi itam am ngeen ci seen wàll bépp góor itam bi nga xamante ni yaa ngi sa soxna te doo ci gis sa bopp am nañu ay garab yi nga xamante ni c'est bion naturel amul toxique amul chimique ay pommade la yi nga xamante ni soo ko utilisé macha allah kon nag am na pour góor am na pour jigéen savon yi itim am na ci muy savon net net am na itam beneen bi nga xamante ni muy savon gowee savon yi ay shampoing la yenn yi pour wàllu yaram yi ñi nga xam te ñu am problème dermatologique morom feebaru ndoxum siti yi am nañ ay produits bio pour ñom machallah surtout nak pour neb neb bi mom moom shampoing la. savon goy bi pour yaram lay faj bi nak pour bop la ki xamanteni sa bop dafa tëw a problème mu karaw yooyu yëpp macha allah rabbi dañ koy faj fii ci univers bio kër Serigne Lamine Bara Fall képp ku ñu soxla woo ñu ci numéro yi ñu joxe am nañu bureau fii ci Dakar Guédiawaay arrêt bales am nañ ko fële ci Touba Janatu Mahwa ci wetu hôpitalu Matlaboul Fawzeyni ci pencum Serigne Cheikh bintu Fall numéro Touba bi di 76 283 98 69 76 98 69 Nous, nek Dakar nak mën ma numéro 77 160 93 93 77 160 93 93 Géejawaay arrêt du Balès vous mënee ñeu baxna so mënta ñu livrer à domicile.